أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولينصرن الله من ينصره إن الله لغوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أقدتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبير معطل معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أقدتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحييكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلخي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والخاصية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتقبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدقلا يرضونه وإن الله لعليم حليم صدق الله العظيم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله bu ko defee تفسير ñëwaat suñu tafsir tey démb dafa mel ni dafa am luñ jàngoon jàngoon nañ ni xéeféer yi aaroon dañ doon dëdd dañ loon jël nit ñi di leen dëdd pour ñu jaar si yoonu yàlla di leen teree dem ca jàkk ja muy masjidul xaram waaw comme ku jullit ñi boo gëmee yàlla xéeféer yi tere la ko boo bëgg a dem sa masjidul haram di def fa jaamu yàlla ñu tere la ko kon jullit nan lay def ba jaamu yàlla hmm? loolu mooy wax ji dana métti defoon looloo tax aay bi wàcc nag kon aay bi dafa nekk munaasib ci aay bi nga xam ne moo ko njëkk ñu waxee ne loolu kon pexe du ci am ndax ku xaw si yoonu yàlla ñu wëññi la ku bëgg dem sa jàkk ju jàkk ja ñu xormaal ja ñu wëññi la kon nag la pexe pexe pexe amatul nag moo tax yàlla ne inna allaha naka yàlla yu daafixoo dana deefaa ndar anil lasiina ci gaañ a nga xam ne amanoo gëm nañ dana leen deefaa ndar ci fexe xéeféer yooyu ba nga xam ne liñ bëgg def fi sabilillahi dañ ko mën a def liñ bëgg def sa jàkk ji ñu formal dañ ko mën a def te loolu boo boo xoolee xam na ndax su fekkoon lu défendre ak suñu borom konoon julli ñi duñ mën a dem màkkatal mu karama taxaj hmm? ndax yéeféer yi ñoo leen ay armes mais yàlla moo défendre ñi gëm ba tax ñu mën a def seen faratay xaj ba tax ñuy mën a defee fi sabilillah fi ni kenn traité leen ko te bu njëkk nag dañ leen ko traité danaan gis ku bëgg dem si masjidul haram sax wër kaaba ga wala nga fay julleeg yooyu yéefari ter la nga dëpp gis kuy def si yoonu yàlla ñuy ter la waaye yàlla nee na nag maa défendre ñi gëm yàlla ba ñu bëgg def ci diine rek man koy xoolal léegi boo waroon dem màkkatal mu karama avion bi lay yóbbu ki koy dawal gëmul yàlla boo demee ba xegg hôtel ya ngay dal ña ko moom ñenn ñenn ñi sax gëmul yàlla te ñu ngi ko tabax pour yéen julli ñi hôtel yi yàlla sécurité ko ba doo gis kenn nekk fa ñu attaqué la def la dara doo nekk ci jumaa yonent bi kenn ñëw fa def la dara doo wër kaab yi kenn ñëw la def la dara doo taxaw xarafa kenn ñëw def la dara doo nekk mun naa kenn ñëw def la dara doo dem musdalifa kenn ñëw def la dara loolu yàlla moo défendre ñi gëm mais bu leen défendre toon loolu mënul am danga laa naka yàlla laa bu bëggut kullu xawaanin bépp xorkat ca lañ ko xóolu këfóorin koo xam ne weddikat la yàlla bëggul xorkat bëggul weddikat xor nag léegi dafa bëri ñëpp ngi xor dangaa jël président sax fal ko ngir foog foog ne boo ko falee mu dimbale la nga fal ko mu xor la nga fal ko mu lay jaay dund bu seer di la bunoo xatal mayu la jàmm mayu la salaam di la tëjloo ay jàkk di la tëjloo ay jumaa di la teg fi nu yoo xam ne mënoo ci dara loolu xor la bi lay nit ñi fal wala azim loolu taxutoon ñu fal la nga dimbale leen may leen jàmm may leen salaam wàññi dund bi jàppandal lépp looloo taxoon ñu fal la waaye yow bañ la falee defoo loolu da nga seet la la neex rek nga def ko di sonal population bi di tëj di dóor di tëj jàkk yi di tëj jumaa yi xoolal loolu loolu xor la moo tax mu ne laa laa yi bu kullu xawaanin këfa xorkat boo xam ne day weddi yàlla soxlul kooku police bi ci la bokk gendarmerie bi ci la bokk militaire bi ci la bokk ñoom ñëpp booy xool oto yi ñu xamee xaayu Sénégal armée yi xaayu xaayu Sénégal li tax ñu jox leen loolu yëpp mooy yu yëpp pour ñu aar population bi rekk a tax mais ñoom dañ ne ba sa kanam sax population bi population bi ñu waroon aar jël sax fi nit ñi ñoom di leen sonal di dóor di rey te loolu taxutoon ñu fal leen na laa nag yàlla laa yuhibbu kullu xawaanin kafoor léegi nag jullit ñi dañ leen yàgg sonal màkkatal mu karama yéefir ñu leen sonnaloon sonnal bu méttee métti te ñamu ñoo xeex ndax xamuñ ndigal ci xeex yonent bi woote na màkk fukki at yéefir yi di di ko sonal di sonal saaba yi te mënta xeex ak ñoom bi mu gàddaayee madinatu mun na ci la ko yàlla may ndigal soo mu soo commencé xeex dégg wax ji de moo tax mu ne aussi na mayeef na ndigal na ñexeel jullit ña nga xam ne yuqaati loolu ñu ngi jéem a xeex ak ñoom ñuy bañ may nañ leen ndigal ñu xeex fi nit ñi gannaaw bu yonente bi gàddaay ndax bi ñoom jullit ñooñ zulimoo dañ leen tooñ de ah dañ la tooñ kay gëm nga yàlla gëm laay gëm alxuraan tax ñu lay dóor loolu tooñ la di yàlla nag moo leen xeexloo waaye yàlla bi leen xeexloo daf leen dig ne dana leen dimbale wa inna laha naka yàlla la qadirun ku man la alaa nasrihim dimbale jullit waaye dimbale leen leen de allazina mooy jullit ña nga xam ne uxrijoo génneef na leen min seen kër yi te bi xayri xàqin ci mu baax ñu xëy rek génne la nga boo fa sa xalal boo fa sa soxna boo fa dara taxul ñu génne leen màkkatal mu karama ñu gàddaay dem madina mun a war ilaa an yaqooloo lu li nga xam ne wax nañ ko ñoom jullit ñi rabbunaa suñuy borom allahu mooy yàlla lii rek a tax ñu génne boo xoolee fii julli ñi saxal na ñaari tawxiid muy tawxiidu rububiya ak tawxiidu uluhiya tawxiidu rububiya mooy rabbuna kooku mooy rububiya tawxiidu uluhiya mooy allah te mu ne ila an yaqulu lur dañ wax rabbuna yow suñu rabbuna suñu borom allahu mooy yàlla rabbuna mooy tawhidu rububiyya bi allah mooy tawhidu uluhiyya moo tax julli ñaari taw yi foog mu am ko hmm? de léegi nag yàlla am fii lu mu fi bëgg wax kanaa xamoon ñi bon da def lu bon da wax lu bon li tax yàlla bàyyi leen fi ñu baax ñi la xool waaye bu taxtoo na ñu baax ñi xaar nga leen bu yàgg moo tax nit bu xamee këlif daf koy fonk kalifa bu baax nag laa wax ku mel ni Mawlana Cheikh Sidi Alaye Madou si dëkk wala ci commune wala ci arrondissement wala ci région wala xam si dañ ko war a fonk ndax am na loo xam ne yàlla dana ko bëgg def mais bu ko xoolee du ko def loolu yàlla bëgg wax fii da nga de yàlla ne ne walaw laa dafaxoon laaxi bu duutoon yàlla défendre bu muy défendre naa sa nit ñi bëx duxum ñi gën mu défendre leen bi bëx din si ñi gën bu defatoon loolu lu garaaw dana am te mooy li ma bëgg wax nii kon la huddi ma dana màbb sawaamiho xubbe yi sawaamiho foofu boo ko déggee mooy fi nga xam ne fi lay làbbi jaamu yàlla benn tabax la boo xam ne dañ ko daan tabax foo xam ne dara newu ko wéet lay nekk nekk tabax bu gudd kooku mooy sawaab yow jam xoon la nag mufrad bi mooy saw maatu yàlla ne bu taxatu loolu loolu ku naan waxuma sax xale ak nit ñi mais barab ya ñuy jaamoo sax man danaa ko màbbaale lu xuddi ma def na màbb sawaab yow mooy fii jàkkee yi fii fii fii làbb yi di jaamu yàlla wobbiya hon danaa màbb it li nga xam ne mooy indilis yi muy fii nasaraan yi di jaamu yàlla wasalawaatu danaa màbb jàngu yi mooy fii yahood yi di jaamoo yàlla wa masaajidu ak jàkk yi naa ko màbb jus këru yoo xam ne def na tudd fi ci yii yi ma wax ismallaahi tur yàlla kasiir yu bare bare bare bare bare boo xoolee lii moo xamoon ci kaw suuf place yi sawaam ñoom ay place la ñu naan jaamu yàlla ñen ñoo fa doon jaamu yàlla mooy làbbe yi ñaareel bi mooy bi yoon place la bu ñu doon ñen ñoo fa yàlla mooy nasaraan bi mooy salawaatu barab yi ñuy jaamu yàlla ñen ñoo fa doon jaamu yàlla mooy yëhóor yi masaajid jaamu gaa yàlla ñan ñoo fay jaamu yàlla mooy jullit ñi yàlla nee nag bu ma seetoon ñi baax ah bu ma xoolatoon nit ñi baax sama jaam yu baax konoon tey si tey danaa xalak ñi bon ma baale place yi sax ñi jaam mooy suñ suñ borom <laughs> ah kon kilifa baax na si si si si si ci ab dëkk wala ci ab gox wala yenn zuran na waat na ne dina dimbale laaw yàlla man képp koo xam ne yan zuruhoo dimbale na diina yàlla ku dimbale diina mu dimbal dimbale diina nag mooy nga taxaw ci diina li diina digle nga koy def di diina tere nga koy ba kooku mooy dimbale diina ina laa nag yàlla la xëw yun aji dëgër la Aziz ku not ci nguuram la loolu jeex borom bi nee jullit ñi àllasi na mooy gaañe nga xam ne in mag makkannaahum buñ leen jekkaloo ñun yàlla fil ardi ci suuf aqaamoo dañuy taxawal salaata julli juróom lu ñuy julli ñuy joxe zakaata asaka hmm? wamroo ñuy digle bi maxroo bi ci lu baax wannaxoo ñuy tere anil munkari ci luñ ci ñu ñoo julli wala laay ñeel na yàlla nag xaaqibatul umóori mujj mbir yëpp ndax mujj mbir yëpp ci yàllaay mujj mu xàttil ko wa in yu ko si boog dem dañ la dañ la weddi ah faqat ca dëgg-dëgg de kasabat weddiwoon na xablahum la leen jiitu ñan ñoo weddoon xaw mu nooxee nitu nooxeen ya weddiwoon nañu yonent yàlla noo kon kay buñ la weddee bu ci am problème bu yow kenn lañ ko def waxaat mooy xaat weddi woon nañ seen yonente ba muy xóot wa samood samood weddi woon nañ seen yonente ba muy saali wa qawmu ibrahima nit ibrahima yi weddi woon nañ ibrahima wa qawmu looti nitu looti weddi woon nañ yonente yàlla loo wa asaabu madyan waa madyan ñoom it weddi woon nañ seen yonente ba muy Shuayb kon kay bu la waa màkk weddee wallaahi bu jàmm benn problème ndax lii la njëkk weddi woon nañ léegi nag mu ne ko kusi ba weddeef na lu bëree bëree bëree bëree Muusa yonent yàlla Muusa moom lu ñu ko weddi dafa bëri ñii ñëpp ñu weddee nag fa am laytu ma yandaxtal man yàlla lil kaafir yi na ñeel xéeféer yandaxtal mooy nit ki dala def dara nga man koy jàpp nga bako waaye su topp gannaaw ga ak xastuhum jàpp naa leen mbugal fa kay kaaw téef naka la nekkee nekk kii di sama mbugal ci yéeféer fakka ayin ak a bëri dëkk wala fakka ayin ak a bëri min xariyatin tukkee ci dëkk bu waxee dëkk nag waa dëkk ba la ci nam waaye dëkk xamul kan yàlla toggul ko dara hmm? mais boo alxuraan bu waxee dëkk rek waa dëkk ba la ci nam mais dëkk yàlla toggul ko dara tax ne fakk ayin ak a ak bëri ak fakk ayin ak bëri min xaryatin ci ñun dëkk ëxlëg naaxaa dëkk boo xam ne ñun yàlla alag nañ ko mu nama ci waa dëkkam wax ya waa dëkk boobu zaalimatun di tooñ seen borom ci weddi yàlla fëhi dëkk ba mu nama ci waa dëkk ba xaawiyatun di aji daanu ala orosha si kaw xëdd ya kooku mooy daanu bi gën a xéen borom bi nee na bëri na dëkk yoo xam ne mun na ma ca waa dëkk ba dañ maa wéet di ma xalaat leen tey si tey boo demee ba sa dëkk ba da gis xëdd ñeex ya bu ñuy daanu xëdd ba xëdd ba mooy ñàkk daanu dugg ci biir tabax bi tabax bi ñëw daanu ci kaw mooy fa yéex xaaweetu naa laa wooche booy dox da ko gis si jamono yooyu ñuy xalak nit ñi. wa birin bëri na teen mu xàtt la teen yoo xam ne dañ leen gental kenn rootu tuuti ana ña fa daan root da naan an ña daan root da sangu da fóot xalak naa leen waxas rin bëri na ay pale masidin pale yu gudd gudd gudd yoo xam ne da nga fay romb kenn du fa ne ana ña fa man yàlla maa leen alak waaw ah, afalam yasiiroo kanaa doxu ñoom waa màkk fil ardi ci suuf di xool wa takkoonu nekk lahum ñee leen xulóobun ay xol yëqiloona yoo xam ne dañuy xalaat bi ca xol ya buñ doxoon génn dee dañ gis waaw loo xam ne mën nañ cee xalaatee gëm yàlla xam ne ñii gëmuñu woon yàlla yàlla alag leen te ñun bu ñu weddee yàlla yàlla fii dañu jëmee aw aasaanin wala xamuñu ay nopp yasmaoona nopp yoo xam ne dañ déggee bi ca nopp ya toog ndax xanaa tooguñ ñu leen wax ay xibaar naan leen ah am na ñu doon wax nit yi nit yi nit yi yonent yàlla Hóod yi ñuy xaat wala nit yàlla yonent yàlla Samood yi yonent yàlla Saalim ñu leen wax Samood xanaa tooguñ di dégg ñuy leen wax loolu naan leen ñooñu dafañ leen alak waaw ah buñ déggee de tax ñu dellu gannaaw moo tax mu ne aw asaanun wala amuñ ay nopp yasmawoona yoo xam ne dañuy déggee biixaa ca nopp ya toog dégg xibaar ñuy wax ne yàlla xalak na xeet sàngam xanaa defuñ loolu ah fekkee def nañ loolu ke war nañ ci mën a waaro yàlla ne la fa innaha naka lii mbir tey mbir laa tax maa du gumba ab saaru bët yi bët du gumba toog mëna a tooy gis kooku du gumba yàlla mi nee na walaakin waaye tax maa dana gumba alxuluub xol yi xol boo xam ne gëmul yàlla gëmut alquran gëmut sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam xol boobu moo gumba waaye bët boo xam ne gisatu dëgg dëgg yàlla nee na loolu du gumba gumba daal dëgg dëgg dëgg mooy ku weddi yàlla weddi alquran weddi rasulullah allati xol ya nga xam ne fii sudoori ñu si biir ah xol yooyu de ñooy gumba de waaye bët du gumba de ñoo xéefér yi nag wa yastax ji loo naka ñu ngi lay sàkkoo yàkkamti yow sayyidina muhammad bil xaasaa bi si pour nga indi mbugal mi waaye mbugal mi dana ñëw ñoom su fekkee dañoo yàkkamtu yàlla yàkkamtuwul wala ni yuxlifa duhuute laaw yàlla wax duhoo diggam ba yàlla dig bi mu dig ne dana ko indi mbugal mi bu jotee rek mu indi ko yàlla yàkkamtuwul ndax wa inna yowma naka benn bis end rabbika fa sa borom ka alfa sanatin dafa mel ni ki junni at mi maa tukkee ca la nga xam ne taxut doona yéen koy lim fan ya ca yàlla benn fan bi rek daay tolloog junne xati fii kon nga xam ne yàlla yàkkamtiwu hmm? te yàlla sax amul temps amul ay fan amul ay semaine sax waaye si natt la rek kon yàlla yàkkamtiwu bëggoon mi fa mu ñëw waka ayin aka bëri min xarit si dëkk am laytu yan njaxtal naa loo laxaa ñeel dëkk ba wëya dëkk ba zaalima di aji tooñ rek mu namm ci waa dëkk ba su ma aqastaa topp ma jàppee dëkk bu mbugal wal masiiru mujj gi nag illaya jëm na si man yàlla xul waxal yow sidna Muhammad yaa ayyuhan naas yéen nit ñi innama ana lakum nasiirun mubin innama dumuluru ana man yonent bi nasiirun aju xuppe laa lakum ñi leen tax bokk na ci turam yi nasiir mooy kii xupp nit ñi sa safa mu biinul ku bér ni muy xuppee wala si na gaañ xam ne gëm nañ wa hamilu ñu jëf salihat jëf yu bax yi lahum ñeel na leen maxfiratum jéggal wa risqun ak hajana kër yi mun xajnel ju rafet rafet doo firé fo foo ko sax wala si na gaañ xam ne saxaaw dox nañ muhaaji na mbir moom ñu jema lotlo fi ayatina naa kawte fi di jéem a yàq alquran di jéem a yàq diina di jéem a sabatu yonent bi fa ulaayika gaañuñ wala ulaayika gaañuñ asxaabul jahim ñooy waaye safara yàlla nañ ci àlla musal léegi nag ñu ngi bëgg firi benn aaya bu yéeme yéeme boo xam ne boroom xam-xam yi dañ ci wuute waaye dañ maanaam te koy mën a firi pour mu leer foog nga am loo indi nettali pour mën koy comparer aay bi ñu soo a mën a dégg aay bi mooy wama arsalna min qablika min rusulin wala nabiyyin illa isa tamana alqaa fi umniyati aay bii la yàlla def ne wama arsalna xebeluma man yàlla min qablika li la njëkk yow Seydina Muhammad min rasulin si yonent wala nabin du caageen kuñ solo illaa isaa tamanna lu dafa jàng moom yonent boobu ba mu jàngee déglu leen baax de alqaa na seytaanu iblis fii ummiyati yi sa njàngam yonent boobu waaye yan sëqu daa di dindi laaw yàlla maa la nga xam ne yulqii sànneef na ko ca xolu yonte bopp seytaanu iblis su ma yuxkimu topp yàlla xar topp xarte laaw yàlla aayaat yi ay kaawtéefam walaaw yàlla alimun aji xam la xakimun aji xare bi li yéen xale ngir na def maa la nga xam ne yulqi sànni na ko seytaanu iblis mu def ko mom yàlla finatan mu nek finna li lesina yi na ñeexel ya nga xamne fi fii nek na seen xol yi maradun febru kefer ak lan wa qasiyati qulubihim ak ñi nga xamne seen xol yi dañ wow kon kon kon kon kon koŋ loolu nekk si ñoom feebar te mooy musrikul arab wa inna zaalimina nak way toñi la fi shiqaaqin ñu ngi ci wuute baxee din koo xam ne gu sori dëgg-dëgg yonent bi salaa dañ ne dafa mos jàng moom yonent bi da doon julli jàng suuratul Hijr te booba xéeféeri Quraysh yi ñu ngi ci gannaaw am na ñu ne dafa toog ci place di jàng suuratu nañ mi te xéeféeri Quraysh yi ñu ngi ci gannaaw bi mu jàngee surut nañ ba yegg ci afara ay tumu laata wal uzza wa manaata zaalisatan uxra saytaane moo dugal ci làmmiñam ne ko tilkal xaraaniiqul ola inna safaatuhunna la turtaja pourtant laata moom ngay wax ak manaata moom ngay wax ak xosa xam nga ay xërëm lañ ñoom ñetti xërëm yooyu la safaatuhunna seen ràmm ëllëg yoomal xiyaam la turtaja dañ ko jaaka nañ yonent bi wax ko bi ko yonent bi waxee foofu barabu sujjóot la yonent bi rot sujjóot yéefari tamit rot sujjóot ah biñ paree na ah ñu ne ah fi ne kon jiwoo xam na ndax yonent bi nga bi ñu xam ne moo daan ŋàññi suñu jàll yi tey su jóot su jóotal na suñu yàlla ah. lii lii moo am mais nag wax jii ma wax nii dafa am lu ko dàq dafa am ñaari hijra tey yu am ñaari gàddaay yoo xam ne saabu wi gàddaay dañ ko dem xabas li waral ñaari gàddaay yooyu dafa ñëw fii si xissa bi commencement islaam bi ñu sonalee Muhammad sonal sahaaba yi te mënta xeex ak yi ñu sonal leen sonal leen sonal leen lool mujj yonent bi dafa xebal saabu yi na leen ah dama bëgg ngeen dem Xabas mooy Éthiopie am na buur bu ñuy wax foofu Najaasi yi maanaam ku dem làqu ci moom kenn du la mën a dara dama bëgg ngeen dem ci Najaasi yi ngeen làqu ndax seen coon yi bëri na lool te yàlla mayagul ma ndigal pour ma xeexal bi saaba yi dem ci Najaasi yi làqu ji fa ba ñuy dem ñoom saaba yooyu fukki góor lañ Ousmane ibnu Hafaan si la bokkoon Jaxfar ci la bokkoon ñu ngi àndatoon ñeenti jigéen ñeenti jigéen yooyu ya bu Seydina Muhammad si la bokkoon ba ñuy dem luñ dugg gaal lañ dugg biñ demee nekk Éthiopie foofu ab diir bi ko xéeféer yëgee ne ah saaba yi de am nañu dem Éthiopie làqutu ji foofu ca Najaasi est-ce que duñ dem jëli leen ñu ne waaw nañ seet ki gën a xam ñaar ñi gën a xam xel nañ leen seet yónni leen sa najaa yi pour mu jox ñu gaay yooyu ñu indi leen julli ñooñu daw làqatu ji foofu ñu jox leen ñu ñu indi xaal leen gën leen a mën a sonal gaa yi seet ñaar ñi gën a am xel ñu yónni leen jox leen nag wurus bu bëri ak xaalis bu bari na bu ngeen demee na ngeen ko neexaleen najaa si pour mu mën leen a jox gaay yooyu ngeen ñibbi bi ñu demee ba ci najaas yi ñoom gaa yooyu doo ko ah ñun de dafa am suñ gaa yoo xam dañoo daw ñëw fii làqu si fi ñu ñëwoon tey nag pour nga jox ñu gaa yooyu lii nag ñoo ko jox xaalis bu bëree bëri la liñ bëgg nag nga jox ñu gaa yi ñu yóbbu leen najaas yi ne ah balaa ma leen leen jox gaa de dama leen xool laaj leen ba xam najaas yi xoo gaay yi gaa yi ñëw. xam nga buur dafa am nuñ koy nuyoo bi gars yi ñëwee ñoom nuyu nuyu nuyuwuñ najaasi nuyu buur dañ ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaat ah ñi yéefar yi mooy délégation bi yéefar yónni wax najaasi ne ko xoolal ma li ma loon li ñu loon la wax rek gars yi xam nga ne du ñu baax ndax ñoom bi ñëwee sax nuyuwuñ la ñu nuyoo buur najaasi ne leen waaw yéen lan moo tax nuyuwu leen ma ñu nuyoo buur ñu ne ko ñun dañ leen nuyoo ni nga xam ne waa xaajana loolu la ñu nuyoo ak malaaka noonu la ñu nuyoo najaasin ne leen loolu mooy lan mu ne ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaw najaasin ne moom li muy oote ñu ne kooku de ne yàllaa waaw mun leen ndax seen waajur indi na téere ñu ne ko waaw waaw suñu waaj kay indi na téere munu ko seen waa ji lu mu wax si si si xeesaa munu ko daf ne xeesaa abdullahi la rasulullahi waaw najaay si ne waaw seen waa ji li mu wax si si yaay xeesaa muy mariam mu ne daf e, suñu waa de daf ne mariam asra la maanaam tëj la góor musta jaar si koom te bëtool la jaamukatu yàlla najaay si ne waaw ndax li indi man ngeen mësee wax dara gaa yi na ko waaw mën na la see wax dara Jaxfar jóg jàngal ko surtout Mariam ba mu xeggee si ne inni Abdullahi aataani kitaab wa jaxalani nabiyan wa jaxalani mubaarakan ayna maa kuntu wa awsaani bi salaati wa saakaati maa dumtu xayaa najaasi na commencé jooy xisi siini yi mooy borom xam-xam yi ak ruxbaan yi ñoom it commencé jooy na jaas si ndeysaan muy sëgg jël benn bant yëkkati ko ah na seen waa daal li indi ak li xeesa indi maanaam ñoo tolloo net wax délégation bu yéeféeri yónni na ah ñii du ma leen jox ñii ñii bu ngeen ma joxoon montagne wurus sax fa zaaga lastu ubaali laa wala asul léegi nag xeefar euh, léegi nag xeefar yi li bëggoon amuñ ko ñu jël mooy délégation boobu demoon mooy li bëggoon mooy récupérer saa yi mais amuñ ko léegi nag ñu dem ba jamono jullit ñu nekk foofu xibaar bi yegg fa ne yonent bi ak xeefar yi jiboo nañ ndax yonent bi dafa daan ŋaañ ni yàlla xeefar te tey su jóotal na yàlla xéwér kon jiwoo am na kon li ngeen a ne fii moom jaratu ko na ngeen ko xabas gi dellu xaat màkkatal mukarram ndax yonent bi jàng na surtout laata wal xosa ah wa manaata zaalisatan uxra si làmmiñam tilkal xaraaniixul yooyu ngay wax de seen ramm yaakaar nañ ko yoomal xiyaamati daal di comme que saa yu sujjóot la yonent bi sujjóot yéeféer sujjóot ñu ne kon yonent bi jiwoon naa xéeféer bi gars yi déggee xibaar ñu si najaas ñu ñëw ah gaa yi ne ah déedéet jiboo amul ko amul sii lañ dellu xaat xabas gàddaayaat muy ñaar bu gàddaay kon saa gàddaay ne ñaari gàddaay yoo xam ne xabas la soo gàddaay beneen gàddaay boo xam ne mën nit mun a wax mais gàddaay sabar bi lii moo ko waral ku mel ni jalaal nag nga xam ne moom moo mooy moo moo moo mooy mooy mooy mooy xam ne xut bu samaan la moom nii la dégg aay bi gi jàng la ko fiire waaye am na ñoo xam ne dañoo dàq lii ñu lii xamut waaye ñu ko dàq de moom bi ñuy tafsir moom hmm? amna na ñoo xam ne dañ ne baaru tamana bi firi jàng ñom gisuñu ko te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam it yàlla du duggal ci mom muy wax tilkal ni qul ula inna safaatuhunna la tuqya yaronte bi ndax maxsum la yàlla du def ñu xam mais jalal mom dafa saxal ne lam am na yàlla defoon na ko bi mi génne xaat am ñoo xamne dañ ko dakk ñi ko dàq nag ñoom danaa man nag kon jalaal laa lay wax li li jalaal wax man na li jalaal wax laa am ndax boo xoolee aay bi yàlla ci boppam moom wax na ne seytaane def na ci jàng yonent boobu dara lam ca def man yàlla génne xel naa ko kon man waxu jalaal ji laa am mais am na ñoo xam ne dañ ne xis ak yoru ñi ko wax nag ñoom ñoo juuñ kalaasu jalaal mooy yeneen nit yàlla yi nga xamante ni dañ ñëw gannaaw gi nga xam ne seen ba si yonent bi ak seen sawku gópp day tax ñuy dàq ci yonent bi loo xam ne sax lu am la te xamuñu yonent bi toujours yàlla da koy wan ne ko nit kese la mais ñoom seen mahabba ak seen sawku gópp moo tax duñ mën a saxal yooyu mais man li jëlaal si la ànd hmm? yonent bi nit la yàlla toujours da koy wan ne nit la ndax yonent bi mën a def loolu yàlla génnee xaat ko ci moom si sens mais loolu mën na ko dal ndax yonente bi waxu yu bi arrêté na lu man ñeen fukki fan ñëwatut ba yéeféri naan kii yàllam ji ko téewoon bana ko kii li mu wax dara amut ci affaire bi bi mu demee ba déranger Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente bi dafa yéeg ci montagne yi màkk yi di bëgg wàcc daanoo sa kaw wàcc pour xaru dee day wax yu ñu koy wax loolu am na bu demee ba nam mu koy def rek jibril wàcc na ko innaka la rasulullahi xaqan ba 40 jours yi mat wax ji soogu ñëwaat kon doomu aadama doomu aadama rek doomu aadama boo ko comparé suñ borom doomu adama rek dafay ne waaye yonent bu ñu ko comparé ak yeneen mbindeef yi mën na fa nekk leneen waaye bu ñu ko comparé mbir yàlla nag moom jaam rek lay ne moo tax jalaal moom lii la wax ci aay kon dégg ni jalaal mooy loolu mën na ci la am am na ñeneen ñoo xam dañ ne wama arsalna yónniwuñ ñoom ñu déggee min qablika li la njëkk yow sayidina muhammad min rasulin ci yonent wala nabiyun du caageen kuñ soloo illaa isaa tamanna lurut dafa mbébét moom yonent boobu ñeñ ko yónni ñëpp gëm ko ñeñ ko yónni yëpp nangoo jaamu yàlla nañ ko yónni yëpp nangoo wéetal yàlla waaye yonent moom bi mu lool xam na koo xam ne mi ngi toog bëgg lool mooy saytaan saytaan li bëgg moy ñi ko yónni wëd yalla ñi ngi ko yónni ñàkk wéetal yalla ñi ko yónni ñak jaamu yalla loolu la saytaan yi bëgg saytaan yi bëgg lool nak alqa sanina ash-shaytan iblis fi umniyatihi ci lu yàq mbébatu yonent boobu waaye bi mu sànnee loolu si xol si yonent bi fa yan saqu dindi na laaw yàlla maa la nga xam ne yul xii sànni na ko saytaanu iblis pour yàq mbébatu yonent bopp su ma yox ki mu toog mu xaati laaw yàlla ayaati ay aayam laaw yàlla xan lii mun aji xam la xak kii mun aji xam li yaa ngi ngir na def laaw yàlla maa la nga xam ne yul xii sànni na ko ci xol yonent bopp wala ci mbébu mbébatu yonent bopp saytaanu yàlla def ko fitnatan mu nekk fitna li la si ne ñeel gaa ñi xam ne fii xuloo bi nekk na seen xol yi maradun feebaru kéeféer waaye nag jullit ñi moom leen daal wa xaasitu xuloo bi ak xam ne seen xol yi dafa wow koŋ muy musriku arab wa inna zaalimina nag way tooñ muy xéeféer yi ngi ci wuute ba xëy xam ne bu sëri dëkk la xam ne dégg mii lañ jàng waaye nag man jalaal jalaal laa ànd yàlla ne maa def loolu wali yax la ma ngir na xam àllasi na gaañ nga xam ne ootoo joxeef na leen al ilma xam-xam hmm? ñu xam ne annahu nag moom alquran ji maanaam bi ñu defee loolu ci Muhammad maahu dindi ngir xamal ñi xam xam-xam muy ëhlul kitaab wala ñu mel ñoom ngir ma xamal ne annahu nag alquran ak kun dëgg la min rabbika ku bay koo sa borom gëm bii ci alquran fa tux bi te daal di mokk xulóobuum seen xol yi loxo ñeel alquran luy ne laa naka yàlla la xaadin aji gindi la àlla seeni gaañee xam ne amunoo gëm nañ ilaa siraati jëmee leen ci yoon mustaqim ni yoon ju koj koj loolu jeex yaa ne wala yeesaalu du dañ allazina gaañ xam ne kafaroo wedd ne fi miryatin di sikki sàkk min hu ci alquran sikki sàkk ci alquran di sikki sàkk si sidina Muhammad di sikki sàkk si diina di sikki sànn si yàlla xataa taati yow ba dikkee leen saxaatu bis penc baax tatan si mbedd waaw yaati yow dikkee leen sax ah saa ba yoomin mbugalam bis xaq mbugal moo xam ne mbugal mu jurmel la mooy mbugal moo xam ne mbugal mi baaxul ñoom lii rek la ñuy xaar almulku nguur gu sax dàkk dàkk dàkk dàkk dàkk yow ma yàllaa ko jagoo muy laamu maanaam euh, laamu ixtisaas yàlla moo jagoo foofu nguur moo yelloo foofu nguur yàlla nag yaxkumu dana xàtte baynahum diggante nit ñi keroog yomal qiyaam na xat bi nii nan la koy xattee fan la si ne xam ne amono gëm nañ waxaami loolu ñu jëf saalihaati farat ak sunna ñoo jëf yi jannaati naim ñu ca aji nay xewal ci wala si ne gaa ñi xam ne bi ayaati naa suñu kawte fi fa ulaayika gaañooñ lahum ñeen leen ensaabun mbugal muhinum mbugal moo xam ne dañ leen doyatal wala si ne xam ne xëjëroo gàddaay nañ yii sa bii ci laay si yoonu yàlla biñ gàddaayee si yoonu yàlla nag su ma xutiloo topp rayaf leen aw maatoo wala ñu dee sax te kenn rayut leen ñooñu la yasuqannahum dana leen wasagal laahu yàlla risqan wasak xasanan bu rafet te mooy mu dugaleen ku képp ku gàddaay si yoonu yàlla moo xam da nga dem ñu rey la moo xam sax danga doon dox si yoonu yàlla ba far dee fa te rewut ëllëg yowmal qiyaam yàlla dig na la ajal na laa naka yàlla la moom hmm? xayru raziqina moo gën ci way wasagal ni su fekkoon am na ñuy wasagal yàlla moo jigéen gën te fekk sa xamul kenn kuy wasagal kiy wasagal kenn rek la muy suñu borom subhanahu wa taala yàlla ëllëg yoomal kaam la yudd xi lan nahum dana dugal jullit ñi ma daqalan dugguwaay boo xam ne yar daw na gërëm nañ ko te mooy xajan way ne laa naka yàlla laa lii mun aji xam la حليم الأجلان ملني فوق لن يهمون شيء تفسير وآخر الدخوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته